mbokk yi xaritu internet yi ñu ngi leen di euh, nuyu bu baax a baax ñu dikkaat ak yéen ci li gën a fës ci internet bi waaye nag bi ci benn ponk lañu koy jagleel muy mbirum ki nga xamante ne moo di Adja Diallo Adja nag ñu gënoon ko xam ci jabaru Ibou Touré ba noppi doon animatrice ca 2S TV moom nag ci ñaari fan yi ñu weesu dafa publier woon ci li nga xamante ne moom moo di sënabam que désormais nañu koy woowee madame Jean-Patrick Ewouman loolu nag bokk na ci li nga xamante ne moo taxoon internautes yëpp jàpp ne kii dafa amaat jëkkër. gannaaw divorce bi nga xamante ne am na ko ak euh, Ibou Touré waaye ba ñu xëyee ci lendemain bi moom ci boppam Adja Diallo moo publier waat ci snapam daal di wax ne bu ma kenn envoyé ti message di wax ak man ci lu jëm ci wàllu mariage bi ndax ay fool dong la ma dikkee woon man célibataire la te nii ma mel ci sama célibataire bi neex na ma bu ma kenn sonal am na ku ma am koo xamante ne man ak moom ñoo nekk te man ak moom jàmm ak salaam donc lañu ñu nekkee musuma ma am jëkkër ak ki nga xamante ne moom moo di Usu dañu doon foo rek loolu mooy li nga xamante ne bind na ko ci sënabam waaye nag li ci gën a garaaw mooy kooku nga xamante ne dafa dippe woon boppam ne moom mooy madame Jean Patrick Ewuman kooku ci boppam moom dafa envoyé message ki nga xamante ne moom moo di Adja Diallo koy xamal ne sa genre foo yi man nag ma ci génne ndax man dama nekk ak jàmm ki nga xamante ne moo di sama jabar donc bu ma dugalati sa genre yu mbir ñàkk fayda yi nii loolu mooy li nga xamante ne mooy li am ci diggante Adja Diallo ak mariage bi nga xamante ne annoncé woon na ko mbokkee xarit yi woy leen di abonné ci sunu people tv jërë ngeen jëf